li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati washkur xilaami wahmat kalaami bila malaami walamtiray sadit lisaani nawir janaani safi amaani wazir baray asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi amaan mbégte mbégte mu rëy dellusiwaat ci bërëb bu tedd jóge ci liggéey bu màgg moo tax ñu dugal bayit boobu nga xam ni sëriñ bi da ciy wax ñi nga xam ni ñooy murid yi ci cofeel gi ci liggéey bi ak ci hadiye gi ñuy toog ak jëmm joo xam ni nag mën na ni dafa boole ñett ñëpp jëmm jooju daan ci ñëw léegi gannaaw bu ñu tofalee ci nuyo bi ziar bi fadilatu cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak mboolem njabootu cheikhul Xadim waaye tofal ci itam. rakkam ji nga xam ni mooy bunt ki leen di waaja a wana leen ki ñu war a amal jataay di sëriñ Cheikh ibnu Cheikh Salihu borom jamono ñu nekk fii ci këram gi nga xam ni mel na ni sëriñ bi am na lu mu xamoon ci moom am na lu mu gisoon ci moom ba fàggul ko fii loolu yëpp incha allah dana feeñ ci biir waxtaan bi waaye ñaanal sëriñ Cheikh sunu borom yàggal ko fi te wéral ko mu ànd ak mucc ak mboolem njaboot Cheikh Salih ñaanal mboolem njaboot Cheikhul Khadim kon. ñu jox euh, suñu jëwriñ sëñ Fallou Galass Sylla moom it mu nuyoo ngeen daal xam na gën kilifa lan toogal ban murit saadix la ñu toogal ban citoyen exemplaire ci senegal lañ toogal aouzu billahi min alcheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim laa hawla wala quwata illa billahi aliyil azim waqdi hawaaiji alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu inna alladina saarahu fi xidmati falahum diyaaru wasal jannati barke borom Tuubaa sëñ ji maa ngi lay jaajëfal di la delloo am nuyoo di sof sama nuyoo ci sam nuyoo tàmbalee ko ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadou Muntaxa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi doole wéram waaye ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ibnu sëriñ Saali suñu borom may ko fan wu gudd lool waa ànd wér-gu-yaram kàttanal ko ba naaj yi mu naalal lislaam suñu borom may ko ci ndam ba mu àggale ko euh, di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala muy dolli ak leer ak yërmande ci ruuxu sëñ Saliou Mbacke li fekk doomu aadama ngi dox ci kaw suuf euh, di am mbégte ci toog ci kër gi nga xam ne euh, moo di kër ni nga ko tuddee al muridu saadiq di ko xam ne ak dundam ak yëngutoom ak dalam léppam ci Serigne Touba rek la ko delloo. ki ñu toogal nag suñu borom daf ko wutal fondation. Mm-hmm. fondation ci ay maam. Mm-hmm. fondation ci ay baay. Mm-hmm. nit da koy xam ci bi mu doonee mag wala bi ko yàlla joxee teraanga. waaye boo xamul démbam da ngay yaakaar ne day gan ci li muy def. waaye koo xam ne sa maam bi muy jaayante ak buum la takk ci baatam wut aw yat boole ko jox kilifaam. kilifa googu dund ak loola ba ni mu génne àdduna saa ñu demee gis ne yat wi sa maam ko fi joxe woon. kooku maamam yàgg naa joxe boppam. yàlla ko suñu borom kàttanal ñu toog nag ci jataay boo xam ne jataayu sant yàlla la mm-hmm. ni ko sëriñ Cheikh waxe woon ci appel bi mm-hmm. te bi mu ñëwee moom mu doxe loolu ne tey damaa ñëw ngir ñëw sant si sëriñ Saliou mm-hmm. sant si sëriñ Saliou moo di liggéey bii mu war a ñëwaat tey mel na ku yeesaat war koo tàmbaliwaat ci ginnaaw bu yàlla tegee nattu ci ab jullitam jullit ba muñ nattu yàlla booba di nag moom mu teg ko ko mu nangu ne dogalub yàlla moo ñëw ci moom mm-hmm. yàlla tege ko mun a naat nattu bi ma tegoon nag damay demaat ba ca tool ya ma santaat la fa mm-hmm. loolu mooy li sëñ Tuubaa woote ci màggalu Tuubaa mm-hmm. bi ko yàlla tegam nattu dafa woote bisu sant kon moom tey bi muy ñëw daf ne damay ñëw si di sant si sëriñ Tuubaa di sant si sëriñ Saaliwu ci yàlla mi ma tegoon ab nattu te teggi ko ba ma mën a ñëw teewaat àndaat ak yéen mbooloo liggéey bi kon sëñ ji li eh, dañ lay bàyyee kàddu gi rek incha allah ba ñu tàbbi ci biir waxtaan sunu borom moom ku mun na mut euh, ku mun na mu liggéeyal da waajal. Mm-hmm. waajal la ci ay waajur yu baax yu sell yonent yi sax alayhimu salaam noonu la leen di def euh, sunu kilifa yi itam noonu la leen di def loolu itam moom mooy li ka dal ci côté ñaari côté yi itam ba tax na kon du ñu gën a guddal ci moom daan ci ñëwaat ci biir waxtaan bi lu ci bari itam daa ngeen di gisaale image yi ni ngeen di gisee image yi nga xam ni tey jii bésu cant la ci moom. waaye nag tey jii am na lu ko waral am na fu mu jógee ba yegsi fii foofu nag bu Serigne Cheikh nuyoo ba noppi dañ koy jëkk laaj mooy digganteem ak Serigne Saliou. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ngi sant uh, sunu borom bu baax bi tabaraka wa taala sant gu wér. di julli ci yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal. sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa kullu murid di ñaanal sëñ Cheikh Mbàkke xalifa sëñ Saaliu Mbàkke di ñaanal it uh, jullit yëpp taalibe yi rawatina ñi nga xamante ni ñëwoon nañ ci tool yi di barkeelu uh, ndax ku ci ne def nga ci sa sa dara mm. muy sa ñaq yaa xam noo noo ko jëlee waaye loolu sëñ tubaay fay parce que man dama mos toog ak sëñ Saliou ba may yónnee ko ah Mbàkke man day sëñ tubaay dama am ci moom yëg-yëg waaye mosuma ko gis mm. fekk ma doon yónnee ay machine ma lay wax nag yàgg na def naa avant deux mille la boobu gën naa nekk euh, tout tànk bis boobu la ma xamal ne ma xel kom bii de xanaa da nga xamul ni tool yi sëñ Tuubaa la ku jàpp ni da nga ñëw tam xamal ni sëñ Tuubaa ngay liggéeyal waaw sànq sëñ Moustapha Lakram leeral na ko ci digganteem ak Màkka ak euh, ñaq gi nga xamante ni taalibe yeeg ku nekk fu ne lay jógee dañ jóge Amérique France ak lépp ndax barkeelu même bu dee dañuy dagg sax benn tige sëriñ bi nag moom daf ma féete woon ci ñaari côté daan wax ni doom laa bu ko Sëriñ Tuubaa jural ba pare yëg ma bàyyi ndax yow sëñ garas xam nga sunu histoire euh, man sama maam ñetti doom yu góor laa moom ñetti doom yu góor yëpp mu tuddee leen sëñ ba pare jox leen ko sëñ bi ki ci gën mag mu ne nañ koy wooye Amadou fekk fa maam Cheikh Anta ki ci topp mooy sama turandoo mu ne nañ koy wooye Cheikh Amar Cheikh ki ci topp mu ne nañ koy woy sëñ Daaro hmm. ñett ñoo ñoo bokk ndeeg baay fekk fa maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta nag xale yi di dañ set mu ne ko yow de dooma ñaar du ma lay gàntal hmm. waaye nag comme kii ci digg bi dama koy téye Cheikh Ahmadou jur sama papa hmm. ñi si des moom mën naa leen ko jox su bër ñëwee mën nañu ñëw ci yow Cheikh Ahmadou mën na ñëw ci yow wala ñoom sëñ daaru ñëw hmm. fekk si moom moom nag moo ma daan nett lu bëri ci saayir nii moom magoon ñoom sëñ sali ak sëñ Abdoulaye hmm. ak yooyu dund na ba quatre vingt quinze ah man nag sëñ bi li ma fa yóbbu man sax xaw ma ko man euh, def naa bi ma amee sept ans laa jébbalu moom sama bàjjen membre su moom fa yóbbu woon ndax xam nga ñoom waa njaareem mm-hmm. lañ sëñ bi mm-hmm. boobu maag moom moom maag moom maag moom ba nga xam ni daal man sëñ bi daal demoon na ba ay mbiram jaaxal ma daal mm-hmm. ku yàlla may tuuti rek boo xoolee sëñ bi di nga xam ni kii bokkut ak ñun. Mm-hmm. ci lu wér. waaw sëñ bi bokkut ak ñun te fii ak at euh, jéemoo sax ŋàññi kenn parce que man murid la man murid laa ñoom ñëpp laa gëm. Mm-hmm. waaye nag ku nekk da nga am bunt. Mm-hmm. man ndokk ba ma sama bunt nekk sëñ Saliou. te boo xoolee. mu noppaloo ba léegi tàmbalee ci alaaji baara dawalal na ko sept ans ma six ans mu ne ko woon di doon sëñ Tuubaa sëñ Sidi Moxtaar mi fu mu ko fekkoon day wax kii dee da ngeen ko sakkanal génn ñëpp sëñ Muntaxaa nii xam nga ni bi mu taxawoo sëñ Murtala dafa ne ko ba ma tolloo fii nag ma taxaw kon xam nga ni ñi fi ne ba tey génn ñu ci liim man ki ma yërëm mooy ki génn ci liim ñoom ko tool bu mel nii amul Afrique bu njëkk dañ ko daan def ay weer weer gis nga tey eh, bala ñoom sëñ galas di woote bi ñu wootee rek la gaa yi tàmbali ñëw daanaka ñun bi ñu ñëw sax dara desutuf waaw kooku amul fenn ci àdduna sa liggéey yi jëkk ci tool bi nga xam ni sëñ Saliou dafa mel ne am na liggéey yëm la ci daan defloo lu jiitu sax mm. mu jox la bari bii ñu nekk kër gi mm. nga xam ni ci yoonu njëru mm-hmm. ba ni ñu yegsee 2008 euh, sëñ Cheikh def la jëw ñu xel ko diggante boobu it war nañ ci indil tuuti sa participation ni li la sëñ Saliou daan sant ci jumtukaay yi jëm ci tool yi waaw xam nga euh, du ma di tudd ay tur mm-hmm. waaye maam Cheikh Anta hmm. mu daaru salaam hmm. mu sëñ moo roqee dafa ñëwoon France hmm. ñu fa nekkee moom xam na ni man dama jeex ci sëñ bi am loo xam ne nag euh, dañ ko seqoon maa dem di ko wax sëñ bi sëñ bi nag ah moom day ndongo li moom day dafa mel ni màggal la fi géej mu ne ko wax màggal la fi géej xam naa liggéey be ko jàpp mu ne ko woowal ma ko dama ko soxla bi ma ko waxee jamono yooyu Air Afrique ak yooyu daw ma jël avion yegg si fi vingt heures continuer fekk ko Daaru Salaam xel ñëw mu ne ma daal dama lott ci sama machine yi ma ne ko machine lan na ma tracteur yi daal li ma ci joxe dafa bari te daal di ma ma ci bëgg aw ma ko mm-hmm. man pour man sëñ bi ay camion lay wax mm-hmm. parce que xam nga liy tiire ah, tracteur waaw liy tiire camion tracteur la tudd moo ko bas gars yi ne moom lu muy ay camion ñu ne ma waxuloo loolu de mm-hmm. sëñ bi ma <laughs> <laughs> dafa am machine yu ñuy wax Ferguson. Mm-hmm. ay tracteur lañu dañuy bay. Mm-hmm. mu ne ko loolu de mel na ni dinaa koy romb waaye jaxasoo ma ak ñoom ne ma daal dama bëgg nga yëngu ci. ah ma ko Mbàkke yow de loo wax loolu la ñuy def ma jóge fa dem Ndar seeti soxna si suma ma juumul jamono jooju est-ce que portable am na sax amul woon ma génn ñëwaat kër ga sama yaay na ma ku ñuy wax Matar Jaxate woote na fi mm-hmm. nee na sëñ bi nee na nga fekk ko xelkom daaru ji ñuy wax daaru saram mm-hmm. a ah, ma dem fekk ko fa fekk bis boobu am na ay tubaab yu ma waxal ñu ñu wax ma benn prix mm-hmm. bi ma ñëwee boobu kàttan gi dayul noonu bi ma ñëwee sëñ bi laaj ma laaj ma ma ne ko daal lii lañ ma wax mu ne ma ah loolu mënut a jar tracteur parce que li nga wax ni boo ko xayma ba mu toll ñaar fukk man loolu lañ ma koy jaayee mu ne ko man de lii lañ ma ne ma njëgu transport bi mu ne ko loolu euh, dama ci yëngu bàyyi noonu rek mu ne ma ah kon de xanaa mbaa mbaa du métti ci yow ma ne ko man dooma teg lu métti ci man waaw ah, su ma doon dem ñu ko yàlwaan sax dinaa ko indi fi may wax ak moom woo Cheikh Anta mu ñëw gis man sëñ bi li mu bëgg man ñemewuma ko kii xaalis sëñ Tuubaa la yor mm-hmm. te wóorul damay bañ def erreur mm-hmm. Cheikh Anta ne ma déet man daa ma taal 4-4 daw Dakar <laughs> am na hôtel bu am ngor man kadeera fa fanaan ñu indi fa ay walisu la la nit ñi man ne xaalis kenn du ko jaarale ci aéroport dañuy def facture daal ma ko ciy liggéey nag mu am ci mbégte mu am ci mbégte man tam may yëkkati sama àddiya di ko ci def te duma ko wax xam naa ni da koy xam sax ndax am na benn bis ma ñëw di ko delloo benn chèque bu mag mu ne ma du ko laal ma woo Saliou Diakhaté mu ne ko fan mooy compte sëñ bi mu ne ma am na compte bu ñuy wax euh, BIS banque islamique mm-hmm. mu ko nañ ko def mm-hmm. keroog sinbi bi ñaanal na ma ñaanal boo xam ne euh, biir na ma ci ma topp loolu dara na ci na bu mu paree dafa ni ma lii nga def lay teguñu la ko woon waaye buñ doxee tuuti euh, di nga ma defal lu ëpp lii fuuf te ba pare xam nga jamono jooju Colobane lañ daan jaare sëñ bi ba fii nii kër gi fii mu nekk àll ay bouquet yu kenn mm-hmm. xamul mm-hmm. mu rëddal ma fi ma mm-hmm. delluwaat Touba muy kër gi kër gi ma delluwaat Touba mu ne ko mbàkk koo yaakaar moom munoo ko wax da nga juum mais tey ñu ma jox nit mënu fa dëkk xoolal <laughs> tey mooy kër Touba. wallaay booy dem xel ko booba booba gisoon na lii. waaw. Hmm. Hmm. lu nag xam nga booy liggéey. Hmm. lu ne di ko dégg. tey ñu ma jege dem nañ ne ko sëñ bi mbaa jaawale woo ñu jaawale woo ko kii xale la kii lii la keroog bi ma njëkkee indi tracteur bi bi kader mi anamu xale waaw mi ngi taxawal. moo bàyyi ma fenn. dafa génn boobu gën a nekk xale. moo génnal boppam loxo yi ba gis tracteur yi mu ne ko yéen nag moom maa la ko indil moom addiya la mu ne ma alhamdulilahi rabil alamin lii de lu ne dégg ko ci waaye xamoon naa ne rek nii lay demee boobu léegi nag mm-hmm. lépp luy agriculture daf ma ci laaj sama xalaat. Hmm. te nangootul jënd fenn machine. Hmm. parce que. waaw donc kon histoire bu yàgg la. Hmm. sëñ Cheikh nag moom bi mu ñëwee yàqu si dara. waaw dafa ñëw ñoom sëñ Galas ñu fekk nañ. muy 2008. waaw woote bu njëkk sëñ ci xel ko. waaw woote bu njëkk bi. ñëw rek euh, laaj. kër gi daan demee. ñu wax ko man ma daal yow laay. jiital def la jaww ji. loolu loolu moom damay jox sëñ Fallou Galass Sylla bu ko defee mu introduire phase boobu ñu ñëw nag ci phase su sëñ Cheikh li jëwriñu tool yi Touba Xelkom. jërëjëf sëñ Jili euh, xam naa euh, ñu ñaanalaat ko rek ndax euh, booy waxee ak gëm ak bëgg day bari sax yoo xam ne danga koy fàtte ci itam kuy defte loo weesu fàtte ko bëggoo bëggoo waxtaani sa mbir. ndax suñ borom dafa wax ne jëf ji ba bala ko yàlla nangu loxo bi ndijoor bi koy teg bu ko bu càmmoñ bi yëg mm. naa diggam ak sëriñ Saliou foofu lay toll mm. eh, waaye fu bare bari jaar nañ fi ci wàllu machine yi ndax sëriñ bi ko amoon problème la ci wàllu machine mm-hmm. te sëñ bi moom machine u Ferguson moo koy tuddal laa meñu mm-hmm. boppam da ko bëggal boppam mm-hmm. waaw eh, loolu mu ciy nettali histoire bu gudd la waaye loolu lépp mooy sëriñ bi ci boppam la yàlla waajaloon ku mën a àndal ci liggéey bi ku ko ci jàppale mm-hmm. ndax ak ñaan bu nangoo gis nga damay wax ne gisoo suñu Abdou Lahad bi mu doonee sëñ Tuubaa mm-hmm. ni ko yàlla tàggatale ku mel ne Alaaji Njuga Kebe nga xam ne lu mu bëgg rek mu mën loola mm-hmm. tàggatal ko fee ñeneen ak ñeneen nitu nitu yàlla toujours yàlla daf koy tàggatal mbër moo xam ne moom lay àndal sëñ Saliou li mu soxla du ko laaj état du ko laaj kenn kon war naa am ku mu dendal ku ko yàlla tàggatal jox ko jumtuwaay yi ba lu mu soxla koo ko mën koo def maa ngi fàttali ko rek benn tubaab bu mu daan àll na bu gàtt ma lu lañ koy wax xaw ma ko yabante woon ak kadeer la machine yi biñ ci njëkka a duggante dañuy dem seeti ku ñuy wax mu njaay caam fa la njëkk a gisee ab tracteur di ko xool kon boobu toon ci affaire tracteur dara waaye ndakate war naa mën a représenter Afrique gépp ci mbirum tracteur loolu sëñ Saaliwu la yàlla doon préparé euh, loolu nag ba ci liggéeyee liggéey bu rëy noonu ndax toujours damay wax nit ki ne boo ko xamut ee nga koy wooyee loolu mu liggéeyal sëñ Saaliwu ci tracteur xanaa xam ne waqf yu sëñ Mourtala yi fonda membre fondateur la ca. Mhm. seq koog sëñ Mourtala ci liggéey bu rëy. ci kaar yi ak la ca aju. Mhm. widd kontam def ko ci ngir jëmi yàlla. Mhm. kon am na lu ko suñ borom di waajalal. ngir ëllëg. waaw dafa jaayante. jaayante nag dafa metti waaw day laaj alal laaj bakkan. waaw eh, loolu la alxuraan waxoon. laa inna allaha astara minal muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna su ngeen jaayante joxe seen alal ak seen bakkan ma warlu leen bu ngeen faatoo tàbbi àjjana moom dafa jaayante jaayante waale mbooloo loolu nag bi yàlla dogalee mu dem ba 2007 sëñ Tuubaa Cheikh Saalihu dem àjjana danañ ci ñëw incha allah sëñ Saalihu dafa sëñ Cheikh dafa toog di sëñ Saalihu te sëñ Saalihu préparé ko nag ba mu mat sëñ Saalihu moom ndax sëñ Saalihu bu ko neexutoon du dem su gisutoon du dalam xelamit du dem waaye dem na ba mu wóor ko ne daraam duutu yàqu dana fi bàyyi koo xam ne dara du yàqu mu soog a dem. Serigne Cheikh nag bi mu toogee ku mën a diisu la te mën a laaj laaj na liggéey bi nu mu daan demee kër yi ci daan dem xam na ne Daaru Salaam damay wax toujours ne Serigne Moustapha mu sëñ Abdou Karam muy daar waa waa kër sëñ Abdou Karam ak maam Cheikh Anta 89 90 jin woote Xelkom ba 2022 ji amul juñ masa manqué Serigne Cheikh bi mu laajee am nañu am xelam jàppoon bi ñu koy tudd jëwriñ ji di ko wax jëfam ci yoon wi ak jëfam ci kër gi ak jëwri ñi ne ci kër gi sax lim leen di jàppalee leneen nañ ko woo ma def ko jëwri ñi xañ ko moom automatiquement daan na sëñ bi sëñ am na ay mbëri boppam man damaa bëgg ak ngem bu mër sëñ Saliou nag daa ñeme daa ñeme sëñ Saliou am na ay mbëri boppam man damaa bëgg ak ngem bu man bu ma juumut appel bi ñu ko njëkk a def dama ko woo téléphone mu boole ma kader ne man def leen ko foofu te ngeen laaj ma lu mu laaj rek ma fay ñu def appel moom ma woo ko ginnaaw bi sëñ Cheikh na ma déedéet na ñëwal boppam toog ci sama wet moo ko njëkk am ci àdduna mm-hmm. ñu def appel bi ci sama kanam léegi nag jaar na ci foo xam ne ci diggante ñiy dem xel koom ñëpp mu luyee kaar yi mm-hmm. kaar yëpp mu daan ko financé ba noppi génn dund bi mm-hmm. ba noppi nag def moyen boppam ànd ak njabootam di ñëw yaakaar naa ne foofu jaar na ci ak sëñ Cheikh loo xamante ni bii incha allah buñ ko ci joxee moom it dana xam ne bam gisee sëñ Saliou gëlëmoon na waaye dafa mel ne bi sëñ Cheikh ñëwee da laa niitalaat yoon wi nga xam ne ci nga war a jaar. sëñ Cheikh moom euh, moom ni mu ko expliqué rek amatul loo xamante ni lu spécial luñ si teg. Mm-hmm. jàpp na ma comme doom euh, xam nga lu day ni xel kom nga fekk fa ay mag mm-hmm. fekk fa ay sëriñ ñu tànn la ci ne la yaay jëwriñ tur bi rek dafa neex mhm. ndax boo nee Cheikh Amar ne xel kom kooku yàlla def na ko te wooy la boo xam ne mënatul seey mhm. ay ancien jëwriñ yooyu yoo xam nga amul waaw ancien sëñ Tuba amul <laughs> sëñ Tuba amul <laughs> xel kom amul waaw noonu la demee daal donc maa ngi koy sant waaw di ko dolli dénk njaboot gi mu di doom yeeg raq yeeg mag yeeg ñëpp daal nga xam naa ne attan na ko te mën na ko ndax euh, sëñ Cheikh ku gis ni muy doxe waxuma ay waxu milliard de mais sëñ Cheikh Saliou mii li mu yenn mm-hmm. euh, boo doon compte quatre person mënuñu ko. déedéet damay rafetal. waaw. damay bañ ñu ne xalif bi la rek ak moom. <laughs> moo tax ma ne ñeent tënk. mais li muy dundal si doomu aadama. lii ngeen di bay ni yëpp lu ñuy dundal rek. dugub. jaay ko na gerte gi la ñuy jaay yooyu. Mm-hmm. waaye lépp ci taalibe yi la koy dugalaat. Euh, kooku daal moo gëm yàlla. Mm-hmm. man maay defaat appelu buñ boojee bu pare. Mm-hmm. maay defaat appel woote. nit ñi dajawaat fi def lépp cere. Mm-hmm. waaw nga ne benn saako leen. waaw lay jox nag. ñëpp lay jox kon ku mel noonu boo ko amee comme sëriñ moom moom xam nga ay murid lañ. Euh, kenn duñ yàpp. waaw. Euh, ak milliard lañ yemale. Mhm. Sëñ Tuubaa dimbali nañu ba pare. man ku may jéem a seeyal ci yoonu murid da ngay seey. diw defoon na fi diw defoon na fi diw defoon na fi. Mhm. man def naa boolewuma ci wax. Mhm. nit ñi ñoo gis wax. boo doole. ne dama doole da ngay bàyyi ñu ne la kii dafa doole. waaw sëñ moom comme ni ngay wax ay mbër la yor. waxuma mbër yi di làmb de. sëñ Thierno Diouf làmbaay. mos na ma woo ma ñëw mu ma xanaa yow li li ni ko laa la ma ne que déedéet xamu ko sax de dama koy dégg rek. mu ne ma bëre du doole. li nga mën loolu mooy mbër. nga ku ma jaxasoo moom tam ak euh, ñoom Baye Cheikh Khady vraiment waaw waaw waaw waaw xam nga lii daf fi masul am daal mm-hmm. daf fi masul am sëñ Tuubaa nag moo amul tànku gannaaw moom sëñ Tuubaa amul tànku gannaaw mm-hmm. sëñ Tuubaa mën na fay mm-hmm. moom daal amul bor ah, sëñ Saliou dafa dugaloon ci point boo xam ne. Mm-hmm. sëñ Cheikh ñëw yeesalaat ko. Mm-hmm. ndax ku xam ne wàllu agriculture. Mm-hmm. kilifa yoon yëpp ci la ñuy te gis nañ ne bi mu ci nekkee matériel mbay dafa jàppandi woon. kilifa yëpp mën ay tracteur dem ci àll ba. léegi dafa mel ne bi nga ci bi nga ci ralentiré. ku jafe-jafe ngi ci commencé waat am surtout nag tracteurs yi nga daan indi ay Foromata ay Foton ay Fiat yooyu dafa mel ne sax pièce pièce rechange sax mënatu fee am. sëñ bi moom bu fekkee ne dafa bëgg dara. yàlla def ko siy fekk. ndax dafa jubóog sunu borom. te ñii mu fi bàyyi it dañ xam àdduna. xam nañ àdduna xam nañ ni ñuy téye seen i taalibe ku nekk daal xam nga fi nga yem. mais kii ñu yor moom kenn yabu ko. xam nga Cheikh Anta moomu xam nga ko. kooku du jógal kenn de. boo xoolee ni ci gën a tàng rek nga koy liggéey. man ni ku ma gën a tàng amul. Mm-hmm. dara fëqul sama bët. Mm-hmm. ndax dama jamonoon teg sëñ Saliou. Mm-hmm. waaw sëñ Moustapha Lakaram noonu. sëñ Cheikh Anta noonu. keneen noonu keneen noonu. yéen ñi toog moom moo leen ko jaral. kii dañ ko woo démb rek mu ñëw. donc loolu mooy dundal suñu xol. den nga ku nekk ak li nga gëm. mais ñun ñëpp ci yonent bi la ñuy daje. xam naa nag xëy na bunt yi ñooy xaw a. sóoreenteeg yooyu rek ñun ñëpp yaa am naa yaakaar ni dana baax daal. sëñ Fallou sànq dafa am ñaari abyaat yu mu ubbee. Mm. Eh, wax di awaay jëlazina daamu fi xidmatin wahab lahum maram mm. loolu doy na sëkk. Mm. gën a am yaakaar. ci yow gën a am xel mu dal ci yow. mu tegaat ci itam la inna lazina saaraxoo li xidmati fa lahumu diyaara wa saljanati yooyu yëpp sëñ Tuubaa mi ngi ko wax ci ñu koy liggéeyal. kon moom suñu xel dal na ci fànn bu baax. waaye yàlla dafa dogal tey jii bi ñu àndee ci tool yi ci cant gi ba tey sëñ Moussa Lakaram dafa yëkkati kàddu yi am solo ñu ne woon faaw suñu jataay bi ñu am ak yow nan nga jàngate sunu jataay boobu ak sëñ Moussa Lakaram ak ministre bi nga xam ne mooy sunu mbokki taalibe la mooy di Aly Ngouille jaay ñu jox ko département bii nga xam ne itam réew mii ñu nekk mënta suqaliku mënta développé wu te département boobu développé wu muy agriculture mm-hmm. nan nga jàngate jataay boobu ak kàddu ko waaw kàddu yi moom xam nga sëñ Moustapha dafa dëggu man sama xarit la mm-hmm. sama sama bu baax Aly Ngouille itam ministre Aly Ngouille yaakaar naa jox nañ ko lu mu xam mm-hmm. parce que day bay jàmbaar la mm-hmm. te banquier la te xam nga bay pour mu rentable fi mu ne foog ngay calculer te xam nga moom BHS la nekkoon. Mhm. waaw banque de l'habitat la nekkoon yàgg nañ xamante nag avant ministre boobu ñu liggéey si banque bi. Mhm. daanaka Touba Almadi boobu sax moo ma defal business plan bi. Mhm. kon boo xoolee directeur u banque agricole. ingénieur agronome la. ñoom ñaar dañu lëkkalikoo finance. ak banque. faw nga mën ci benn pour beneen bi yomb parce que affaire u rentabilité la xam nga booy def comptabilité dañ lay wax lu ñuy wax seuil de rentabilité mooy foo xamee ne boo demee ba toll fa ci ngay commencé gis sa bopp li nga jëndoon di amortir ngay commencé dugg sa bénéfice loolu dafa am ci agriculture am ci finance ci comptabilité moo tax lii ko président jox man kontaan naa defoon naa temps benn interview parce que man du ma politique mais am naa ci ay xarit. Mm-hmm. du ma politique man faruma kenn mm-hmm. man Sénégal moo ma ñor. Mm-hmm. te bu ma nee Sénégal sëñ man lu sëñ Touba amul yàlla bu mu ko am. sëñ Touba lu mu amul man yàlla bu mu ko am. bu ma ci mënul dimbali bokk. nañu ko téye. dëgg parce que boo ma juddoo ba tey. li may am lépp mhm. loxoom a ngi mhm. muy maatam gee ngeen di dégg ak muy mhm. TSE muy TR entreprise yëpp moo ko ibbi presque jox ma tur moo tax képp ku ci dugg rek di jéem a faagaagal ma ne la yow xamoo foo jëm yow ki nga amal affaire ah du ma du man ndax man dama ko naan woo ne ko lii kat lañ ma proposé. ma dugg ci wala bu ma ci dugg mu ma duggal wala bul dugg. ku day ni sëñ Tuubaa. wala dugg. benn nit ñëw naa la taxawal. loolu mooy la. fii sëñ Tuubaa moo fi nekk. gars yi nag ñëpp baax. ku nekk ngi woowee sa tarixa ñun ñëpp a daje ci yonent bi. man tam fu mu mën a jàppale danaa jàppale. loolu laay doxe sax loolu laay dund mais nag ki ma gëm sëñ Saliou Mbacké la président Wade dañ ma sa toog 2007 euh, bi sëñ bi demee àjjana ma ñëw mu ne ma daal dama la woon euh, fekk dama fekkoon ma dem France daf ko def sama gannaaw dama la woon ndax xam ni nga demee sëñ bi euh, ma la ko doon jaale di ma laaj daal. comme ni ngeen may laajee nii ni ñu man man man kii rek laa amoon fekk mu ne ma yow xanaa sa papa dafa nelaw ma ne ko waaw waaye loolu ci la waaye man maa bëggal sëñ bi sama bopp. dama ko sentir. toog naa jotaay boobu sax doguma la toog hmm. président Ablaye Wade yow. Hmm. sëñ Saliou ci boppam mën na ko bu àndoon nag sëñ bu mag bi. xam nga man sëñ mag bi mosuma ko gis. dama koy sentir rek. Mhm. man ci sëñ Saliou laay dem. parce que su ma jàppee ci moom yegg ci sëñ ba mag. foog nga am bunt. Mhm. waaye mënoo nettali géntu jàmbur. Hmm? loolu mënul nekk man kii ma defal man. Mhm. laa xam. doomam ji ñëw tollam ci. maa ngi foofu de. waaw wallaay loolu nag daf ñuy dugal itam ci réew mi ni mu comme ni ma ko junjee léegi. Mm-hmm. ministère bi ñu ko jox tey it réew mënta développé sans agriculture te yow it nga yàgg ci joxe ay message ni fekk amuñu ay grand agriculteur mm-hmm. comme ni muy ame ci pays occidentaux yooyu. Mm-hmm. fi ñu bëgg yóbbu réew mi ci autosuffisance da dana jafe mu mel na tey nag ni ministre bi ñëw ànd ak yow te sàkkul ko boppam itam ndax seen relation. Mm. ak kàddu yi nga xam ne sëñ Moussa wax na ci jataay bi. Mm. lan ngay gën a message bi ngay lancé. Mm. pour gën a encouragé ci li président wax ba pare am yaakaar ci Aly Ngouille Ndiaye ba dénk liggéey bi moom it mu ñëw mel na ko doon jël si xel ko pour def ko échantillon. dëgg la dëgg la <laughs> xam nga euh, autosuffisance alimentaire wax nañ ko fi. def nañ fi autosuffisance en riz. Euh, def nañ fi guana. Mm-hmm. yooyu yëpp ak Reva. Mm-hmm. yooyu yëpp ay solution la woon yuñ jàll. Mm-hmm. yu ñu doon def yoo xamante ni mënoon na jëme mbay mi kanam. mais man bi ma demee ba am ndogal bi. Euh, defe naa nit ñi dañu fàtte ni yàlla mooy rey. ma mel dama naan toog sax sama téléphone du sonné waaye man du ma fayonte. Mhm. waaw dama mos a jàpp rek ni bés dina ñëw dinaa delluwaat xel kom mhm. te ba mu ñëwee foofu ñu def appel bi wax naa la ko. Mhm. nee naa la sëñ Galas su may raam sax man dinaa dem xel kom. waaw léegi nag bu fekkee xamoo. xam nga euh, nit ñi dañ leen di fal rek. mais du loolu moo yor dëkk. dëkk privé moo ko yor. Mm-hmm. état daf fi nekk pour encadrer. Mm-hmm. dëkk privé moo ko am. moo ko moo ko yor. Mm-hmm. loo bon bon bon bon. nga ne kop gis nga. nee nañ dëkk bi amul xaalis de. jëlal dix milliards nga dugg biir Touba ne da nga koy wàcceeku en euro. ci saa si da nga koy am. si <laughs> mi ngi fi. Mm. Ah, mais kenn ñëpp a tiit. Hmm. dañoo doyluwul. de dañuy tiit sax dañuy tiit pour investir. Ah, seen a naa ko temps yi sama benn interview. Hmm. ne Sénégalais yi dañu war nekk benn. ibi banque bu mag. ti hmm. fi def xaalis. di lebal doomu réew mi. surtout ñu jëm si affaire agriculture agro business. xam nga euh, après loolu euh, secteur primaire la. après secteur secondaire. mooy industrie. après ñu doog a dem si commerce service mais dëkk bu commencé wul am lan lan lan même nii nga toog élevage wala wala agriculture lépp ci suuf yàlla suuf lañu may may ñu asamaan suuf rek donc loolu lañ mën a liggéey mais ñu lu day ni Sénégal bu ñu demee ba di am ay problème mu lekk euh, loolu se grave Touba rek ngay dugg fu la neex nga lekk mais nit ñi dañu xiif président moo ngay def ministère boobu. Mhm. te man alim yi am naa ci moom yaakaar. si souveraineté alimentaire bi. Mhm. parce que am na fayda. Mhm. Euh, te mën na ko mais bu ñu jëlee tey ay engrais di ko jox ay nit yoo xamante ni mënuñu la wax engrais bi engrais ceeb la wala engrais dugub la wala. gerte waaw boo xamee moom nga def tuuti formation bu dee xaalis rek nga bëgg man loolu laa gis si si dëkk bi bu ñu continuer nii euh, man de benn espoir moo ma dese barke borom Touba muy sëñ Touba bu doon moom bu du woon moom man pare naa waaw lu tuuti yi ma am laay dajale dem toog mais yal na ko yàlla dimbali amin def nañu rafet. Mm-hmm. Amath Sall laa gisoon mu ko fii def. waaye am ñoo xam ni itam dañ daan ànd ak ñoom liggéey bi parti bii parti omage la balaa ñuy tëj euh, sunu jigéen soxna Adja daan féete fii wax dëgg yàlla amoon ci taxawaay bu am solo ma ko sëñ Bay Amar oto yi ba bërki ba rek sëñ lay Khadim Sall bi may jokkoo ak waa Daayiratul Mubaaraka ñu ngi ma naan ñu ngi waaj ñoom it bi ma la jotee danga ma ni moom fu ñu nekk naka mbay amal daan defee si daan leen yónnee otoog yooyu yëpp mbay moom it amoon taxawaay bu am solo sëñ Saliou sa doom daan ànd ak ñun moom it liggéey bi saa su nekk ak njool ak ñi jiitu ji ñëpp daal waaw sëñ Saliou njulul ma taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci moom moo doon suñu jëwlu ñun ñëpp lii sax buñ ko daan def da daan toog sa wet waaw ma nga kon euh, jox la daal diggante boo xam ne omage lay doon ci ñooñu ak di se sàkku itam ñu nuy seetaan ñëpp itam ñu ñaanal leen ni ko sëñ Abdou Khadir daan waxe rek ñaanu ko fi jóge moom euh, caabi bi euh, matta xeeb caabi bi moom mooy fatiha ak fukki lixlaas ak benn nee na moom mooy caabi bi nga xam ne wóor mooy dana ubbi bun seen buntu àjjana kon nag ñu ngi ñaan ñi ngi seetaan ñëpp ñu